sama gëm-gëm laa wax te xam naa incha allah rabi noonu la fay demee waaw benn song la li muy wax di sóob rek ay benn song la gis nga làmm booy ñëw da nga lépp ay benn song la yooyu ay teg xel la gën a dee man dama koy tëj ñu bëre 45 minutes waxi tàppee rek la fi wax ay tëj bëre bi bu tëjee bëre bi nan la amateur yi ñibbee kii ku mu sa xeexal man ma duma Brise de Mer duma Mbaye Diouf duma bébé Modou Lo ma mu naan ma moom ko kan la mosu duma yéen bawal bawal rek billaay wax la liggéey vingt cinq secondes laa ko may bu ñëw ma jàpp ci vingt cinq secondes daan ko ci vingt cinq secondes maa ngi xale maa ëpp doole maa ngi xale maa ëpp doole maa gën a ñeme lépp lamb laaj maa këpp 25 secondes yi wax. léegi Sow mu socciwul moo tax daam del socc combat passé del socc. mbokk yi bu leen ko fàtte. Fallou Ndiaye moo woote ci arène national soq bu ndaw di raq ci soq moo war a jàkkaarloo ak Petit di di jërbaat ci Modou Xarañ Lo. Alioune Seye junior dina fa jàkkaarloo ak moor kankan waaye Tonnerre ak Dame Sène itamit dinañu fa daje. loolu yëpp nag ci seen affice point com rek ngeen ko mën a amee kon daw leen gaaw jënd seen ay code. bëgg naa la. ah Ahmed. noo ñëwee. noo ñëwee. daan allah rabi. si hmm. kanam rek. géej waaye nga mujjee de. falaa dugg am fanam dañ faa jëloon am fanam de Lamine bu fàtte lool. gars yi sëgg ah. victoire. Ah, falaa jóge te dama fay duggaat te damay am ndam dama fa fay am ndam. Ah. Issa Ngop Issa Ngop dañ fay xam champion yi quoi mooy yomb dañ fay xam champion yi ñu si làmb ñu fi dafa ñu làmb na mbokk man du ma passé làmb dama may ñal carte morom mais nag bu ko changé de Issa bu ko wëlbati de morom kaddu la waaw bu ko wëlbati morom kaddu la wax ngay ni Issa Ngop ah gi daw ne ko ra maa ngi nii de

garaaw waaw waaw ñëpp a matal non kan la ah kan la kii demal demal paa bi nan dala am ku ñuy génn mu kii dugg non paa bi nan na may sax kii paa bi nan dala mën na laa sax may kii waxal ak moom rek I get to play, huh? Ah, ah, nee, ah. Ah, daa dem. voilà waaw. xam nga ku si kii bi daal. ay sax jàmm Bye. yàlla na ko yàlla jàppale ci bisis bi mu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag di wax dëgg yàlla bu ci waar te ku xam arène nationale xam heure yi xam ni tey jii am ko waral nag. hydrobase nous sommes tous des êtres humains comme commandant ay ca càllameer càllameer ñëwal tous càllameer càllameer tuuti mbooloo càllameer Aca Lamso. ah ak beera. waaw mais tegal nu barrière bi. mënul ne mënul ne. may ma oh abiri amul nag dafa leer kon ñëw yéen mais grand combat la kii di bëre moom grand combat lay bëre mais dañuy bot xibla gi pour taxaw pour toog grand combat dafa am A ak B waaw kii B la am yow ngeen am fale fu leen dee ngeen samp mais amu leen droit samp fii mais la may ay togtal la kum la def lu xew combat la yéen rërë sa kii lu xew lu xew kii mooy bëre la yaay bëre waaw waaw parce que A la eh boo dee A bu dee A la ah. ku njëkk a ñëw mooy tegu waaw. lan moo problème bi mooy. problème de choix la. programme CNG bi dañ koy tiré kii dafay def euh, euh, côté A kii dem B mbar bi njëkk a ñëw grand combat moo am droit choisir fu ko neex gabaar moo njëkk a ñëw choisir na be kon moom A la jëm loolu la règlement bi wax nest mais diggante fii ba fële fu mu ci teg jumukaayam. diggante fii ba fële fu mu ci teg jumukaayam baax na. aala rek na nekk a rek d' amaat. lamb léegi football lañ ko def bu njëkk ñaari mbër doon nañ bokk sax fu ñu teg seen jumukaay waaye nag topp yi ñoo ko yàq pap topp yi topp yi yàq nañ lu ne ci lamb. dañ kaa jox fii dañ kaa jox fii mu bàyyi fii dem samp ko leen ku jumukaayam Sa Thiès Moussa Ndoye tamit noonu mu Sa Thiès tam ah maa ngi si làmb ji nga ne amul moom. déedéet déedéet dem nañ nag. et eh, Ndiaye ils n'ont pas le droit amul négociation non non non nañ dem amul négocier waaw non non bu leen nangu loolu waaye eh, et bu leen nangu négociation ci loolu. non mbër fu muy toog ci ci mukaay ndax làmb la cirque la làmb amatu yaa ngi may dégg soo xoolee tey mbapat bi ñuy tëgg da ngay gis mbëri yëpp ñooy ñëw àndandoo ñu teg xaalis ku ko war a jël jël ko te coow du am yaa ngi may dégg affaire CNG la yaa ngi may dégg lamb mbër lii rek la am circuit bi la am bu ñu ñëwee teg au moins fi muy teg ndax mbër cumbukaay a ñuy xool ci moom mais cumbukaay bi ñëw ne la fii rek foofu ngay dem foofu nga mën a exister mais ñun ñëwuñu pour xeex wala pour xuloo xeex bi fii la ci géew bi lii lamb yi du ni fii nii mais xeex fii la damay dégg ci géew bi la mais pas nii mais nag nañu xool système mu ko quoi lamb pas. vraiment CNG nga lool. moom mii li muy wax moom wóor na que ni day wax lu ko neex sama waay la mi ngi nii mais li muy wax wóor na ko lu ko neex lay wax làmb dafa am yoon ñaari mbër ñaari kuy duñ bokk mbalka ñaari kuy mënuñu bokk mbalka. léegi lañ bokkatul mbalka mais bu njëkk doon nañ bokk mbalka. dañuy mbëkkante te ko ci gaañu ñun la ñuy wax ñun léegi dañoo jël responsabilité mooy lan. non non xam nga buñ civilisé woon du ci sax wax te léegi loolu amatul sentiment. léegi combat yu mag yi est-ce que ngeen jëlee nii seen i matukaay. combat yu mag yi dañ koy tiire ñoom xam nañ ko combat yu mag yi da ngay tiire avant muy ñëw dina xam fan lay ne combat yi ñun ñoo tiire wul peut-être ma am nañ ci kii mais nag du tere dañuy def dañuy ferme ku ci ne fi nga war a toog ngay toog ku ci ne am nga am nga toute la moitié ah waaye nag. bu fi lëmbee ma lëmbee la bu gaaw sax. da ngaa jël say décision. non léegi amatul sentiment. ku Lutte TV sax bu lëmbee ma lëmbe ko. ñun duñ lëmbe. sama gëm-gëm laa wax. te xam naa incha allah rabi noonu la fay demee waaw benn song la li muy wax di sóob rek ay benn song la gis nga làmb booy ñëw da nga di lépp ay benn song la yooyu ay teg xel la gën a dee man dama koy tëj ñu bëre 45 minutes waxi tàppee rek la fi wax ay la amateur yi ma duma Brise de Mer duma Mbaye Diouf duma Bébé Modou Lo mu naan ma nga moom laaj ko la musu duma yéen bawal bawal billaay dinaa fayal sama papa Père dinaa ko teg lu métti dinaa ko teg lu métti wax du bëri vingt cinq secondes laa ko may bu ñëw ma jàpp ci vingt cinq secondes daan ko ci vingt cinq secondes maa xale maa ëpp doole maa xale maa ëpp doole maa gën a ñeme lépp lamb laaj maa këpp 25 secondes yi wax. mu socciwul moo tax daam del socci mbokk yi le 24 juillet bu leen ko fàtte. Fallou Ndiaye moo woote ci arène nationale. soq bu ndaw di raq ci soq moo war a jàkkaarloo ak Petit di di jërbaat ci Modou Xarañ Lo. Alioune Seye junior dina fa jàkkaarloo ak moor Kankang waaye Tonnerre ak Dame Sène itamit dinañu fa daje. loolu yëpp nag ci seen affice point comme rek ngeen ko mën a ame kon daw leen gaaw jënd seen ay code.